neex na benn dëkk dàq ko mais ak ma. da ngay doon ndaw di taaba taaba ba la wërsëg. ah. mais am na ne du leen neex te chaque jour duñ jukki di la fexeel. il faut ma waxtaan ak presse bi pour adduna bi xam li xew. wala moo xew tamit. li xew laa bëgg a xam lan la. man de defe naa boo ma waxul lu xew mënumaa xam lu xew. ñu nekk association malfaiteur bu garaaw bëgg a détourner sama xaalis. mais ñaata ko lañ détourné ci yow. un milliard trois cent vingt et quelques millions. un milliard trois cent cinquante millions. te li ñu gisagul rek la. kon de xaalisu entreprise bi xaaj na. te depuis un an mi ngi nii maa ngi toog fii liggéeyuma. mais yow sa entreprise bi sax nu mu tudd. SMBG. mais kon ana sa comptable bi. fii lañ ko fekk mënate ko yóbbu ko. te moom rek nga soupçonné ci affaire bi. ñu xam ne moom ak sunu soxna bu mag. dañuy déggoo. maanaam. dañuy waxtaan. mais yow foo teg ni moom ak sa soxna dañ mom jëndal na soxna ci téléphone portable. xëy tay tey di. jëndal nako ko puce expresso. yow lay wax ni ñom ñaar ñu ci déggante. kon ana madam keur ga lañ ko fekk japp ci ko yobbu ko. li de lañ nan bukki rey la ba noppi jaale la. man da je suis peur daal. te olof naan ko boo rey say mbokk ak say xarit say non jeex. nous sommes dans un pays où. pays injustice. on va le juger. mais yow lan mo la gëna a métti ci enquête bi sax. biñu ñu defee quelques jours commandant bi woma ma tok toog mu ne ma sa jabar sa alal taqiwu ci. laale wu ci. looy wax nii. mel ni kon moom commandant bi moom moom dafa am règlement de compte ak man. mais xanaa kon bi nga porté plainte preuve yi leerul. ay preuve yu leer laa indi man bi ma ñëwee ñoom dañ ne ma yow dangaa togg ba pare yow danga ñoo jox rek ne ñu lekk leen. ñoom ñoo la wax loolu. loolu lañ ma wax. kon lu xew bañ tuutal enquête bi. xaw ma nag li xew. lii moo tax Sénégal kenn nangu fi investir ndax lu mel nii moo ko waral. ndaxte da ngay liggéey ba dee ñu sàcc sa alal. nga jàpp sa sàcc loxo si police deux jours nga gissat ko mu romb la 4 4 bu neex nga xamni li sa alal la te do ci mën dara ndax te jaay doole gi ci bopam mo fi bëri jaay doole baaxul ci ku mën a doon te be nañ tëdd ci almeri tey boo leen laajoon naqaru xol dong mo len ray man découragé na nag sama man de dama rus yow maître rusu go sax ndax te do koy rus def man de maa ngi sant yalla lu tax maître mi doonul jour rek ndax bu jour da nga yak dem sénégal yu bëri ndax chaque année na transfert dem club bu bees lii da lañ naan njóobanoo sant mun a wele moo may laaj loy laaj lu tax met ngànk Ousmane Sonko rek ne du ko bàyyi lo nga mo a laaj waaw kay motax ma la koy laaj xale bu ñew nek setané muni Jesus is Lord eh? ne lañ ne bu dé setané wala gën lolu lolu doom ram yakoy ya, wax wa maître lu mi wax ni ay doomaraam rek ñooy wax lolu li rek moy waral ne li nit ñi di wax ci yow day naqaree dindi dé waaw ci ki adof kay ko yow day naqaree dindi wa maître mi ak Ousmane Sonko est-ce que combat la sax nitu yàlla ab sëriñ bokkul kat. muy def ak léeg-léeg bii di mel ni alu Casamance foo jeex rek gis sa robel. maître mere naa la nga def interview rek. jéemoo yëg ni mere naa la. saaga nga fi Ousmane Sonko ba saaga wala fi Sénégal yi te yëg ni. am naa dara lu ma la jàppal. fas naa sama kanam ba yëg ni fas naa sama kanam ba egg si gañ sax. mais dara. am na yoo xam ne nit a koy xam. comme yow doo nit. damay dem ak yow direct pour nga comprendre ak kanam ngi ko gis xamna ne jamono dinosaur la documentaire dong nga mën xol gis dinosaur amatul race bobu jeex na moo métti ak nga amuñu surux yi est ce amna ay bañuy maté du maté du maté bu ci dugal sa lox ay mukk talu may tatanus ginnaaw bu ma gisee Tarba Mbaye askeere ci guerre bi borom jaar bi dafa kon my boy xibul xol wa ki gis ni du dom mangur bi xala la sama yon neku ci dama xam ne kat tala moo fi waxone ne guerre guerre morul guerre niki boy guer da ngay guer sa guer man da taalim yi dama yaakaar ne papa Diop koy ndax te pànk gi ci bàjj yëpp mi ngi ci mom ndekati yow looy wax ni. xoolal ma rek lim fi waxon guer gueru jambour morul guer niki boy guer da ngay guer sa guer wax waxet gi ci papa ji yep min ci mom wa tala xana mën a football. mënuma football. sa papa de moy fi waxoon ne. man dama njool. boy 1 m 98 lay def. xanaa mënoo basket tamit. mënuma basket. te do dugg ci lamb ji tamit. mënuma beure i man daal jomina naa wala léegi luy pexé sama voix bi laa am musique laa bëgg. yaa xam kon musical ah, sunguf si. waaw. boo ko naanee. waaw. mën ngaa sëyëg ak sa jabar quatre heures de temps cinq de temps ci kàttanu yàlla. sunguf si boo naanee bu la neexee man ngaa man ngaa takk ñeent jabar maanaa guddi gu jot mën ngaa sëyëg ñeent ñëpp te doo sonn. mu ne. ak ah,

man de lii laa wax maa ngi loolu ngeen wax. lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. bu ko defee suñu maam mën nañoo sànni yi ñaan yi rek. amiin. amiin.